wali yakun fi arakaati sarmada wa sakkanaati wa xayaati ahmada maa ngi gàttal wax ji ndax bis moom bu ne yow lañ ko dippee amatul cër bu gën a rëyeeti loolu wax sax jaru ko woon waaye cant rek laay def ginnaaw bi ma ñaanalee sëñ Muntaxa ak sëñ Mouhamadul Bassir ñu yàgg fi loolu te ak mbooleem xalifa yi nekk ci réew mi yépp di nuyu jataay bi sunuy magi bopp di sunuy kilifa di soxna maam Faati Mbàkke ak soxna Bintu doomi sëriñ Cheikh Faati Fall mu maam Cerno Birahim ñooy sunuy kilifa ci jataay bi ndax ñoo fi mag kon ñoo ngi leen di ñaanal bu baax Mbàkke seen toog bi ngeen toog di uuf seen doom yi nga xam ne seeni baay ak ñoom ak yéen la woon ngeen tàllal ngor googu ba tey jii yàlla defal la dama ne xoolal ñi toog ñi taxaw noonu ci buntu nañ ñëw toog nii wala ñu toog ci sées yi te te te bëgguma fii kenn di wax nañ ma déglu toog toog leen ci sees yi mbooleem ku ma ku tax ku bis bi tax a ñëw te nga ànd ak man toogal ci sees te déglu ma may sant bu baax soxna maam Faati soxna Bintu seen taxawaay ci njabootu sëñ Maas gii ak njabootu sëñ Murtala taxawaay bi rafet na lool yàlla na yàlla dëgëral leen te taxawu leen te kàttanal leen baraa nañu amee mbokk bu ñu demee du ñu taxawu seen ginnaaw waaye yéen fu nu xool gis leen te bu leen neexoon ngeen ne ay mag lañu dañuy toog fan toog ñuy ñëw di leen fekk si waaye yéen dañoo gën a dañoo dañoo da ngeen a gën a dalal sunu xel ngir bu ñu leen gisee rek sunu xel dal ndax sëñ Maas jóge fi sëñ Murtala jóge fi yàlla na leen sëriñ bi taxaw te gën leen fee yàggal. di sant bu baax sëriñ Xaadim Mbàkke mii moom sëriñ Abbas doon kilifa am kilifa ko gën. nit noo mën a toll ak ku la mën a jur ak ku mën a doon na nga xàmmee sa bopp ndax bëri na loo xam ne ñàkk xàmmee sa bopp rek moo lay jural yu bëree bëree bëri àdduna yàlla da ko tënk ci organisation boo xam ne boo ko wàccee rek sa àdduna mën naa naqari waaye boo ko tegee ci kilifteef ku ci nekk kalamag nga jox ko war ma réew mi yëpp dana dana saafaru boo gisee réew mi am jafe-jafe yi ñu toll ñi mooy ndaw ñi nanguutuñoo jox kilifa yi jox nanguutuñoo ami kilifa nanguutuñoo itam am ñu leen yilif looloo waral léegi kenn néewut kenn du wax kenn noppil kenn du wax kenn toogal lu waaye wax nga ne yilifoo maa yilif sama bopp ku yilif sa bopp nag seytaane yilif la moo tax Mbàkke ñun doon kilifa am kilifa dañu koo gënal yeneen suñu kilifa foo foo fu ñu leen fekk rek jataayee demee noonu waaye wallaahi laasim bëgguñoo xëcc bëgguñoo ñoddi lu dul ak taalibe dara gën a lu ñu lu dul ak taalibe yàlla na leen sëriñ bi taxaw di sant bu baax sama mbokk yi sama mbokki bopp yi sëriñ Muudu Mbàkke moom sëriñ Abbas sëriñ Mamor sëriñ Xaasim mboole seen mbàkke mbàkk yi nga xam ne ñoom ñëpp suñuy mbokk lañ sëriñ Falilu mboole seen rek ku fi nekk maa ngi lay ñaanal di la sant di sant bu baax sëriñ Modou Kimane mi di ko ñaanal bu baax sama xaritu démb la tey soog a ñëw yal na yàlla sàmm la taxaw la bu baax a baax bu ma fi nekkee di wax yooyu man damaa lekk temps jàmbur bi te temps bi dafa am ñoo xam ne bu ñu wootee ba ñëw faaw ñu wax ak nit ñi te sëñ Axma mii nit ñi dañ koy déglu te dafa war a wax ak sones bi war a wax ak ñoom tegaat leen ci aw yoon ndax réew mi ñu jëm faaw mu wax ñim àndal wax leen fan lañu war a teg seen tànk ndax réew mi dafa jaxasoo kon faaw ku yilif ay nit faaw nga wax kon looloo tax mu bëgg a tënk samay kàddu di la wax sëñ Omar Mbacke mii ma àndal maa ngi ciy ñëw sëñ Omar Mbacke mii ma àndal di sëriñ doomi sëñ Muudu Mbacke ñaaxar mu sëñ Mbacke Ramata di sama xarit ak sëriñ fa Abdou Abdoul Fatah mii mu sëriñ Abdoulaat mu sëñ Mour Fati Xari ak sëriñ Cheikh ñag ma li nga xam ne sama jarbaat la maa ngi leen di parasanté sëñ bi xam sëñ bi xam na leen. su préfet bii nga xam ne moo toog fii tey teewal fi jibi sëñ jibi jàlloo muy nit ku woo xam ne moom mii déglu naa kàddoom daaw déglu ay kàddoom waxtu wu ne muy nit ku xam àdduna te bokk ci ñun bokk ci ñun li nuy wax nii bu dee ci wàllu deret bu dee ci wàllu gu mën a doon ñoo ko bokk yàlla defal ñu moom mii mu am taxawaay bu rafet mook jibi jàlloo ma nga xam ne moom moo ko fi teewal fii ànd ak sëriñ bi ca CRD ba ba tey jii ànd ak moom itam ci consultation ba ànd ak moom ci maye deret ba ànd ak moom ci lu baree bëri lu bëree bëree bari ba ci chemin yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom ñuy polise yi ànd ak ñoom tax seen taxawaay loolu lépp ñun ñii ngeen ko defal ndax sëñ bi du doom xam nga doom mën naa ne sëñ maas sama mag la ndax sëñ Soubayrou Cheikh Faty Fall ñu bokk Thierno Birahim waaye man li may li may nawe nit du bokk ay bokk yooyu man li may nawe nit ay ay qualité la ay jikko la te sëñ bi muy sëñ Ahmadou dama ko nawe ci ay jikko ak i melo mu dëggu lool nag te du jay nit ku muy àndal dëgg rek ay tax looloo tax ma mën a ànd ak moom boo gisee nit naan daa naqari deret nit ñi dañoo dëggootul booy wax ak ñoom dëgg dañuy yaakaar da ngaa naq deret fekk ne dëggoo tax loolu nag man ak moom dañ cee bokkule ay jikko man duma ma ku yàlla bind te duma wax lu dëgg kon nag moom sama xarit la euh, préfet maa ngi lay ñaanal sa teewaay bii nga teew yàlla yokk la te kàttanal la di la jéggulu nag ci yii am ndax yii xëy na jataay yu bari bu fekkente ne miinoo leen ko rek mooy waral yii ndax lu yëngulu ne la ko yëngaloo koy ëpp doole waaye man bu fekkente ne man nga maa topp di ma bàyyi xel danga xam ne man mboolem ndaw ñu ma àndal amul ndaw loo xam ne dinaa la jay li ma lay njëkk a tere ñoom mooy li nga xam ne réew mi ci boppam ñoo ko war a njëkk a taxaw di ko def mooy fexe ba ndaw ñi génn ci dorog génn ci naan sàngara génn ci tux yàmba génn ci it ci agressé fexe it ba récupérer leen def ci ñoom dara def ci ñoom ak taalibe looloo waral ma ànd ak ñoom waaye ku ci nekk ci ñoom itam chaque chaque jour bis bu set damay taqaloog ñoom ngir di leen bëgg dimbali ci loolu ñu loolu nga xam ne moom la ma sëñ Touba bàyyeel mooy yar nit ñi ak teg leen ci yoonu siraata mustaqim kon moo tax yëngu-yëngu yi day xaw a damay déranger ndax léeg-léeg ay nawle da nga fay dem fekk leen ñu toog nga dem fa ak yëngu boo xam ne du baax su boobaa nag mën nañoo jàpp ne sax yow nii nga yare waaye fekk ne ñoom dañoo xër waaye xamunu buñ xamoon lu bëree bëri duñ ko def kon maa ngi jéggulul mbooloo mépp mboolem yëngu-yëngu buñ fi yëngu rek te waruñu koo yëngu maa ngi leen koy jéggulul di ko jéggulul yàlla saa borom subhaanahu wa taala di wax ne bis bi dama ci amoon yéene rek bu ma amoon ku ne ci àdduna dana ñëw ndax moom mii dama ko jaral bu du woon ak bis bii daaw damaa feebar ba tëdd ñu teg ma ay biteel ma ma sempi biteel yi ñëw ci bis bi te kenn jëralu ma ko ci àdduna waxantumaa nag mu tuddee ma ne ma yow kat Mbàkke dama laa bëgg tudde la bis bi te wóor na ma ne du alal du dara waaye kóllëre ak naw ma ak ma jàppanteeg moom rek moo tax Sëriñ Maas doon référence ci nit ku nekk léegi lañ koy waxtaanee ci kër gi maanaam dafa bëggoon sëñ Touba sëñ Maas ba noppi bëggoon boroom daarul moxti doonoon ku dëggu koo xam ne képp ku dégg kàddoom da nga xam ne ku dëggoo ngi nii kon kooku ku mu jur nii rek nga war a mel yàlla na la sëriñ bi taxaw di sant bu baax a baax di ñaanal ñëpp yàlla def ci réew mi jàmm di wax xale yi nanu nanu bàyyi xel fii nu jëm muy ay élection réew mi mboole seen ku jóg di leen marseloo wala di leen ji ma tojloo wala di leen ji ma def loo lenn ci dëkk bi kum mën a doon bañ leen na ngeen bañ ndax réew mi tollootul fu nuy yàqe dañoo war a toll fu nuy defaree réew mi ku nekk war ngaa am itam xel moo xam ne dangaa war a xam ne yow citoyen nga ci réew mi nga bokk war nga am sa carte xool ku la soob bu waxtu wa jotee nga dem wootee ji ko te du ànd ak bruit du ànd ak dara kenn ku ne politicien bu la neex mën nga koo faral waaye nañu fexe politicien bu ñu yóbbu ci di ñu wàcciloo ci terrain di ñu rayloo suñu jëmm yi di jaxasoog police yi ñuy dóor ci ñun ay lacrymogène te ñoom bëgguñu ko ndax ay naw lañ fi am ay mbokk lañu fi am képp koo xam ne ñoo ngi lay wàcc ci terrain bi ngay def loo xam ne waroo ko def xamal na yow it yaa ngi sànq sa bopp ndax réew mi ndaw ñoo ko moom te ndaw ñi buñ ko yàqee ku koy moomati kon nan fexe ba réew mi ñu ndaw ñi nañ ko téye te bu ko kenn yàqal nanu fexe ba noppal police noppal ñëpp képp kuy homme de tenue nañ ko noppal ci suñuy jëmm fexe ba nekk ci ak njub mbaax xam suñu bopp te way te nangoo liggéey dimbali suñuy waajur te xam ne adduna du dara ku fi nekk lala yàlla rëdd sa sa jë bala ngaa faatu da nga ko am Occident yi nga xam ne mu ñoo wër àdduna bi nekk ci biti bitim réew yàq nañ ci ay jikko ndax dañ ñoo bëggloo alal xale boo fi gis ay milliards a nekk ci xel mi te nanguta liggéey koo ci ay milliards a nekk ci xel mi te attaaya lay fanaane attaaya lay gontoo koo ci gis bëgg nay milliards milliards yi chiffre lay am ci xelam waaye nangu te wut liggéey nangu am métier mu mu taxaw pour liggéey koo ci gis ci ñoom yàkkamti na ba nga xam ne Occident yi dugal nañu ci ay carte koo ci gis xale yi jigéen yeeg yu góor yi ñëpp dugg nañ ci carte jàpp na nag mooy tax a xaalis xaalis kenn dañ koy lijjanti waaye kenn du ko liggéey bañ ko waxee nag lañ yàq réew mi. ndax képp koo xam ndaw nga jàngoo wuti woo métier si àdduna yàqu na ndax métier mooy tax nga am dignité métier mooy tax nga am dignité bu fekkee ne ñàkk noonu la métier ba ne da ngay carte bu la naar bi lekkalee trente mille nga dàqu ci amaate cinquante mille naar bi joxaat la cent mille na nga xam ne dana lekkaat ci yow deux cent mille te waaye di ca nga jëm ci su nga jëm ci alku nga jëm kon nañ bàyyi carte gi ndax nañ sunu maamee ca lonaas lonaas yi maa ngi jéggul na baatu lonaas bi ma ci bi ma wax maanaam fas yi lañ fi indi woon ñuy def ay fas nekk fi naan fas wee jiitu wee jiitu ba yooyee jeex ñu indi naar bi teg xale yi yëpp dugg nañ ci naar bi koo fi gis rek ci naar bi lay xëy ci naar bi lay gont kon nag dafa am loo xam ne il faut que ñu koy wax xale yi ñu góor góor bu baax a baax yàlla na leen yàlla sàmm jigéen ñi góor góor lu góor ñi góor góor lu fas yéene am jom xam suñu bopp way nag waaw yàlla nañu yàlla dimbali nag ba réew mi li des fekk deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre bi li des ba élection ya yàlla na réew mi am jàmm yàlla nañu am jàmm def élection yu ci jàmm mu jeex ci jàmm ku ci nekk xam sa bopp te ku ku gañe yàlla dimbal la ba réew mi ndaw ñi yàlla bu yàlla tas seen yaakaar kon nag jërëjëf Mbàkke noo ngi lay sant bu baax di la ñaanal tawféex ak ndam di la ñaanal bis bi yàlla na yàgg barkib jaalibatu maraaxib. aouzu billaahi bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad ibni abdallah wa ala alihi wa sahbi wa xayri xadimi sëriñ Tuubaa cheikhul xadim sëriñ ahmadou mbàkke ibnu sëñ muhaas sëriñ xaadim mbàkke ibnu sëñ abbas ibnu maam cerno sëriñ xaadim kamal euh, soxna bintu mbàkke ngeen baal ma tàmbalee si sama cër si waa kër maam cër muy soxna bintu mi di ko ziar baax di ko jox wàccaayam ak baytala mi nga xam ne mooy rakku sañ sañ Ahmadou Mbacke mi di nuyu waa kër maam Thierno Ibrahima yi nga xam ne nekk nañ si jataay bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu képp ku nga xam ne ñëw na si jataay bi di wax na laata mënoon naa yem si kàddu sëñ xaadim kamaal yi ndax li mu wax dafa matale sëkk mënoon naa jox sëñ xaa Ahmadou Mbacke rek mu wéyale liggéey bi Euh, li mu wax dafa dafa am solo lool lool lool dajaleel képp waaye nag dañ fi ñëw di leen indil kàddu suñu kilifa muy docteur Djibi Diallo mi nga xam mooy sous de Dakar Plateau moom tam mu jëlee ndigal ci ay kilifaam muy le préfet de Dakar le gouverneur ak le ministre de l'intérieur ak son excellence le président de la république ñi nga xam ne euh, jataay bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii lu ñu yëg la ndax avenue bii rek ñu baare euh, du n'importe kii moo ko mën a baare waaye dafa doon lu yàgg loo xam ne lii euh, sëñ Mouhass moo ko daa taxawee damay faral di wax ne également pouvoir spirituel ak temporel mënuñ leen a mënuñ leen a dañuy dem toujours de pair ñoom ñee ñoom ñee ñoom ñee ànd euh, euh, ñi ngi leen sant nag bu baax baax si taxawaay bi ndax sëñ Mouhass naam xamuñ ba mu fiy nekk boobu ay tout tànk lañ ba ni mu teelee làqu waaye ay jëfam ba léegi fekk nañu fii dañuy fekk ñu wax naka la doon tàggatee xale yi teg leen si siraatal mustaqiim te loole également lu ñu mën a gëm la ndax euh, wax naa sëñ Ahmadou Mbacke mi fa maam sëñ Maas yamaloon euh, flambeau bi yëkkati nga ko ba ñëpp di gis baar bi loole sant nañ si bu baax a baax sëñ Xaadim Kamaal lu mu wax lii lu ñu lu ñu gëm la ndax ay at ak ngi si gannaaw ñu ngi ñu ngi ko doon ànd ak moom di di taxaw si si jataay bii daaw rek maa ngi fàttali ba mu toogee nii suñu wet il avait des perfusions traces de perfusions si loxoom kon li mu wax lu lu lu lu lu mu gëm la te it dañuy wax euh, maanaam yëngu yi nga xam am na fi sànq loolee moom mënul ñàkk moom murit gi moo ànd te yëngu yu mooy mooy mooy mooy identifiant bi nga xam ne moom lañ xamal waa kër maam Thierno man lu ma lu ma xam la waaye milieu bi ñu toll maa ngi koy wax sañ xaadim mii rek mu siy fàttali contexte bi ñu nekk mooy contexte bu particulier ak euh, milieu bi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ ne moo tax bay étonnation amee rek automatiquement euh, commandant dafa dépêché wu ñëw ci la ñëw nag ñu jël ko uniquement pour des mesures sécuritaires waaye jàppale na loolu moom du ay mesures sécuritaires rek moo tax ñu ñu jël ko di wax na sañ lu am solo sëñ bi wax na ko sànq dañu jëm fi mu nekk su yàlla dogalee dans deux mois vingt jours danañ dem ci élection présidentielle muy élection boo xam ne bi dañuy tànn njiitam réew al mul ko nag li wax nguur fii yad yi lax la nekk la ma fi teg yuuti man yasha ku ko soob la koy la koy jox du tee nag ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ko bokk ñuy sabablu waaye nañ ko def ñu ko sëñ bi waxee def ko si loo xam ne day dëppook dëppoog dëppoog yoon ñoo xam ne réew mi ñoo ko mokk te dañuy wax lépp ñëpp lu ne lu ne ku ne nga sax te dama jàngee si lu am solo si taxawaay bi nga xam ne waa kër sëñ Muhaas ñi ngi koy taxaw fii maa ngi koy wax sànq si ngoon sañ sañ sëñ Ahmadou Mbacke na maanaam barab bii ñu nekk tey jii bëgg na man fii laa dëkk tiim avenue bi mais tey jii avenue bi tali bi sax boobu yëg na na Serigne tubaa Serigne Touba teew na fi maanaam soppeeku na si lépp lépp te lépp aw la kon yéen comme ay regrettateurs rek sociaux ngeen ay yoo xam ne ay ndaw dañ leen topp seen gannaaw seen taxawaay rek mooy lu am solo ñu ngi leen ci gën a ñaax baax a baax euh, ngeen dolli ñaan euh, ñaanal réew mi yàlla def fi def fi def jàmm ndax lu ñu bokk rek moom solo dama jàngi également ci taxawaay maam Thierno mi ak sëñ Mouhass ndax sëñ bi dafa wajal saxira naa yoo axirul kabir waaye wajal kabir naa yooyu la saxir ndaw res ndaw ndaw respecte mag mag yërëm gone te dañuy wax yoon yoonu toppaate la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 sant également ñi ngi leen gërëm bu baax a baax di wax bëgg nañ sant nañ comme dafa guddi duñ def lu may gàttal rek di wax sëñ bi euh, nga fi jàmm ñu dem si élection yi jàmm nga soññee également xale yi si immigration clandestine bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy constaté euh, ñu gën see soññee xale bu baax a baax kon bëgg nañ sant di wax na seere bi nga xam ne ñi ngeen koy seere jëme si ñun même seere bi également la ñuy seere si sëñ Mouhass Mbacké mi préfet damay wax naan naan dafa am cofeel si moom sax parce que bâche bi tey réex nañ ko taxawal parce que dañu def CLD ba war ko taxawal président programme pose première pierre mais préfet ba ma jox instruction dama wax na euh, ndax wax nga sëñ bi nu mu ko gisee man alhamdulilah loolu moom day cëram ak yaram ak taxawaayam bi nga xam ne moom lay taxaw askan moo tax ñu jox ko cër bu ñu mel donc sëñ Mouhamed jàppal na autorités sant nañ la gërëm nañ la ñu ngi lay ñaanal yan bi nga xam ne moom la la yàlla jox yan na ko yàlla oyofal nga jot suñu nuyoo suñu siyaar suñu xalifa maam Thierno Ibrahima ak sëñ sëñ Muntaxa Basiru di ñaanal yàlla yàggal leen suñu kat yox wa salim wa salim ala nabi wax di bi haadi kulli min barke Cheikhul Xadim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi yubaasun mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa kàddu yu du doon kàddu yu gudd yuy gudd ndax jotaay bi yàgg na ci ñépp te li ëppoon solo ci wax ji kilifa yi fi jiitu wax nañ ko rawatina Serigne Khadim xëy na kàddu yi cant rek lay doon ak soññee tuuti rekk fàttali sunu bopp ak mbokk taalube yi cant gi ñu ciy jiital sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo fi toog. toogaayu sëriñ bi di ko ñaanal sunu boroom guddal fanam lool wéral ay cëram naa li mu sumb ngir liggéeyal ko sëriñ bi yàlla na ko àggale ak sagoom dañu ànd ko ak di ko ñaanal sëriñ Bassirou Anta Niang bi toog toogaay borom Daaru Muxti wax dëgg yàlla jël ji mu jëf sax fa yebal fi ndaw daf ñu dafa kawe ci ñun ndax biñ ko ko yëgalee bu toogoon ñaanal ñu ñaan ngam ñu ñaanal yam ca képp képp doy na set ci ñun waaye mu teewul mu jël ndaw loo xam ne doomam la ñu tudde ko ko muy Serigne Bassirou Soumbédioune mu fi jóge yabal ko fi ak kàddu yi mu seede nga xam ne man leer na ma ne ak mbaaxam képp a tax waaye mérité wu ma ko nekkul sama jëmm yi loolu maa ngi ko ci sant bu baax kawe na ci man loolu maa ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne bi yàlla guddal fanam lool yokku ak wéram ba naal yi mu naal ngir liggéeyal ko borom daaru moom yàlla ko na ci sagoom te ñu ànd koog moom yàlla xam na ni. sëriñ da daan kenn ci njabootam dafa am xew-xew bis ni tey ñu tombé waaye kon mën nañoo wax ne délégation bii mu yónni dana bari ñu lool waaye xeebuñu ko ndax ku ñaanoon képp doon ñu sëñ di sant itam sëriñ mi nga xam ne moo way xalifa sëriñ Cheikh Fatou Fall di ko ñaanal fan mu gudd ànd ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Cheikh Faty Fall di ci jiital suñu bàjjen yi toog ci jotaay bi soxna Bintu ak soxna Mame Faty dëgg yàlla li sëñ Xaadim wax rek wéttal la ñu ndax bu ñu nekkee ci base bi gis leen fi ñoom képp buñ fi nekkoon ak ñun kese jàpp nañu ne base bi am nañ ci liñ doon séntu na boobu ba léegi saa su nekk nii lañ koy ànd ak ñun wax dëgg yàlla di ñu wéttal ñu dooleel ba lépp jeex ak ku ne xam na ni jamono xat ak yaram yu diis yi waaye ñu ànd ko ñun kon Mbàkke ñu ngi leen di ñaan yéen yàlla may leen fan yu gudd ñuy yàgg di def li ngeen koy yàgg ànd ak ñun tam ànd ak wér ci barkeb Serigne Touba. di ñaanal mbooleem mbokk yi fi ñëw tey ci bis bi yëpp boo xam mbokki Touba wala yu Daarul Muxti muy mbooleem kilifa yi sang si ñi jóge Touba ak ñu jóge Daarul Muxti ni ko maam Thierno limee tudd na ñëpp du jar ma ciy jaara dañuy beral cant rek Serigne Khadim mii toog moom Serigne Abbas dëgg yàlla ci vingt et une laay wax ba tey mi ngi toog suñu wet gisuma benn yoon ci kanamam wala comportement buy wane ne jotaay bi yàgg na damaa bëgg a dem yàlla xam na ni bu dul woon temps xat bi sax dañ koy jox mu muy sànni kàddu ndax yàgg damaa dégg ay waxtaanam waaye ku yàlla may dëgg yàlla ci am xel mu rafet ak xam-xam la rawatina ci jamono di doxe jégalu bu baax mbaal waaye kenn gën lu koy yey fii kàddu ci jotaay ñu ngi lay sant bu baax bi jël sant gi sant njabootu borom daal di ko teew yépp ak njabootu sëriñ bi di sant itam ñu ko waxee le sous-préfet Serigne Mass nga xam ne moo fi teew suñu wet teewal fi le sous-préfet Djibi Diallo ñoom yaakaar naa ne man xamatuma sax lu may wax ci ñoom ndax damay baamtu rek waaye ji nañu ngor boo xam ne neexuñu neexuñu fay leen ndax bis bi coono bu ne daj nañ ko ci ni ko sëñ Xaadim waxee CRD teewaayu mbooleem ñi nga xam ne bis yu mel nii war nañ ko war nañ fi teew muy police muy euh, wàllu ñu yor wàllu santé muy waa muy waa kii itam lu ñu koy waxee ci service d'hygiène bi ñoom ñëpp yàlla xam na ni teew nañ ci police ñoom dañ leen di beral cant ndax bis yu mel nii ku ne xam na ne taxaw ko yombul ndax day bari ñoo xam ne xëy na li suñu yi wax seenu xër day yegg fee xam ne li def sax tey ñu ko dañuy jàkkaar la yoon def loo ne ndeysaan xër képp a tax ñu koy def tey ñu ci dara bëgg képp a ñu koy def defuñu ko ngir reewale defuñu ko ngir sabooti defuñu ko daal dañoo xër rek ñooñu nag boo jàkkaarloog ñoom mel na ko jàkkaarloog gone guy doog a jàng dox ba koy man boo waññee mu dellu si waat nga wàññiwaat kooku yombul kon ñu ngi leen di sant police bu baax di ko jiital ci seen njiit yi seen commissaire bi nga xam ne dëgg yàlla moo ànd ak ñoom yabal leen fi ñu ànd ko ak ñun waa santé ñi ngi fi woon sànq ñu ngi leen di beral cat waaye cat googu yëpp dañ koy jëlaat teg ko ci loxoy sëñ Maas mu tegal ñu ko loxoy sëñ Jibi Jàll parce que lépp ñoom la lépp loo xam ne rek bis bu mel nii dina ko am def nañu ko ngir sagal mu taxaw taxawaay boobu kon sëñ mo cant gi moom man xawuma dañuy cant rek waaye yéene ci kawe na loolu sëñ ji bi dama ko waxoon dong laa koy waxaat ci nañu loo xam ne jàpp ko képp lañ man li ñu ñaan nag ci barkeb Serigne Touba mooy jotaay bi yàlla ñu ko defaat déwén àndaat ko ak yéen ni ñu ko àndaatee ak yéen ni ko sax sëñ ciy ñaanee sax fekkee yeneen garaat yu gën a kawe yàlla mën na ko wax naa na ko ne la Serigne Touba barkeb man na ne ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba ak barkeb bis bi kon daal sëñ Jibi sëñ Maas yow moom wax dëgg yàlla wax naa la ko léegi ne la nit dafa seetaan CRD bi ne ma kii ma seetaan bi xaw ko waaye li wax lu mu gëm lu gëm li mu wax nii lu mu gëm ci xolam la te loolu mooy li dëgg kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax sëñ Maas ci yaatal gi sa kër gi gis nga bu ñu ñëwee da nga koy jox njaboot gi yaatal njaboot gi taxaw ci sonn ci gis nga tey li nga wax bi président wu day jàll ndeysaan da ngay ne sax am nañu kersa wax la ko waaye ñoo xam ne ñu nit loolu moo war parce que nag comme muy njiitum réew itam dafa jaadu war ma jooju ñu jox ko kon sëñ Maas cant gaa ngi noonu sëñ ji bi yónnee na fi ay teraanga de ceeb bu ñu fi togg tey jàpp naa ni moo ko fi joxe ndox mu ñu fi naan li ci ëpp moo ko fi joxe kon sant mënul weesu sant waaye ñaan képp lañ ko mën a defal bàyyi ko Serigne Touba lépp am nañ ab cër ci Serigne di sant mboolem mbokk taalibe bu buñ ñu jëlee cant gépp defeñ ko teg ko ci loxoy suñu Omar Thiam ni ma ko waxee seen kanam matal na ko ñëpp muy soxna yi muy góor ñi rawatina ñoom soxna Yaasira soxna Aminta kër ñoom Modou Ousmane gépp ak soxna Koddu ji mii soxna suñu Alaaji mi fi mi nga xam ne képp ku fi daan ñëw xamoon nga ak njàmbaarteem ci liggéey bi yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko ak Sëriñ Tuubaa ak ñam fa nekkal soxna Mariama Ndiaye ñoom suñ Bamba yi suñ Xaadim yi ñoom ñëpp suñu Assane Diouf sant nañ leen sant mënul weesu sant waaye sëñ eh, Omar mi ngi sa loxo nga jotal leen ko ndax wax dëgg yàlla mel na niñ ko bëggoon ba mel nu kawe suñu njort di sant sëñ Mañaan ñaan mi nga xam ne moo jiite daayira Touba bi ñëw fi ak ànd ak ñoom jëwriñ Badara ak ñu àndal ñëpp def seen alal bi sant mbokki taalibe yi ñu koy yëmbal ñoom jëwriñ Ibrahima ñoom Bàcci Dior ñoom sëñ Fallou Mbaye jàmbaar lañ ku ne gis ne ni ñëwee di sant mbokku taalibe yi nga xam ne ñoo jógee Pikine ñoom it fu ne gis na seen taxawaay ak gépp ba léegi ñu nekk ci bis bi sant nañ leen ñoom ñëpp di sant ñëpp rek mbokk taalibe yëpp rek di sant xale yi nga xam ne ñoo jógee Daaru Muxti sëñ Yu Njaay Kiimaan jiite leen ñoom Habib Jonn ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant ak ñoom Isma Bey yi nga xam ne ku ne gis na leen sama wet ñuy dem ak a dikk ñoom ñëpp maa leen di sant ak ñoom Xaadim Seck ñuy toog moom ku ma gis bis bi xam ñëpp ràññee nañu di sant ñoom paate ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant di sant mbokki daarul muxti yëpp di sant ñoom mbokki deret yi di mbokki bi itam muy mbokki daaru yi fi ñëw tey ak mbokki neexe yi muy ñoom maam Assane Fall ak maam Assane ñaan ak ñëpp rek di sant itam mbooleem kilifa yi nga xam ne tey bis bii bu melee ni mel seen loxo dugg na ci buñ ci tuddee jóob si mu yàgg a jëflanteeg sëñ Maas bi mu dund ay teraanga mu yëkkatiwaat teraangam def ko ci ñu ngi koy ñaan yàlla taxaw ko yokk ko ci barkeb Serigne moo du jaañ Fada yabal na fi rakkam ci bëccëg fi la yendu ak ñun muy Galas Diagne ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di di di ñaan yàlla fay leen te taxawu leen di sant mbooleem poñ bi gox bi xam nañu ne lii lu metti la. waaye ñu ànd ak ñun ak buri bu bari bi ñu ngi leen koy jéggal bu baax a baax ñi am tawat ñëpp ñu ngi leen koy jégg di sant Serif abba mii ay dara mii nga xam ne moom it ni ma ko waxee sëñ Xaadim ci ngoon ba léegi ku ko ku ko gis gis nga ko sama wet mu so mu muy xat bi soxna Oumy Mbacke mii ko baax boo xoolee xam ne ko woyof la ñu ngi lay ñaan sa barkeb maam yàlla defal la ngeen ji tax fay fas nañ kóolóor ko jàpp di sant njabootu sëñ Moise gépp maam Thierno sëñ Moutala ñoom sëñ Fallou xale yëpp ñëpp ci jàpp njaboot gu jigéen gi soxna may Aydara soxna may Ousmane soxna Oumy soxna Asmaaw maam Assa ak ñoom soxna Ndeye Sadio ak ñi ñu ko àndal muy ñoom soxna maam jaar soxna maam Thierno ak ñoom Ndeye Guèye ñoom ñëpp rek. di sant itam sëñ maam moo ñun ñi nga xam ne samay xarit lañ sëñ Xaas Mbàkke ñoom boobu ba léegi ñu ngi fi ak toog ak ñun. sëñ Xaas moom maa ngi koy wax sànq sax ne ko moom samedi incha allah lay dem fii ah, ci Gueule Tapée ci ab rii ndaamal daaw di wax mboolem mbokk taalibe ku ci mën a dem nga dem fa ndax suñu wëlëra boobu léegi gis ko mi ngi ñu ngi ciy woo ñëpp. di sant ñëpp rek di sant mboolem daayira yi nag daayira kuréelu xasida yi ak ñi jóge Daaru Muxti ak ñoom jëwriñ bay Daam daayira bi jóge ba Tëngéej ñëw ñoo doon kuréel bi doon def fii di ay gone yu jàmbaare ak sëñ Modou mi ñëpp sant nañ leen wàcc nay kaamil bari na limub kaamil bu ñu jox ak yi xasida waaye mënuñu fi jàllale lépp di sant sëñ Omar mii ñu ko sëñ Xaadim waxee ak sëñ Bas mi fi jóge ak sëñ Fallou Amar waaw bu ñu doo dee lim dañuy dañuy yàggee sëñ xaadim moom man wax dëgg yàlla dama koo nekkoo ko lii dama ko mënul ñàkk bañ a def ndax dama koy defal dama koo def ñeneen tudde nenu képp moo tax ma def ko waaye yow li ñu séq passé na loolu ndax gi daaw daawu jéeg at yi yëpp da ci doon taxawee taxawaayu comme kuñ tudde bis si kon nag bu ñu ko defee dañ koo def rek ngeen jukkal ko waaye yàlla xam na ne su ma amoon li ma gënal du ma ko def ndax nit nit soo koy tudde mbir xëy na day fekk da caa bokkul waaye moom dajaa bokk di sama lépp nag ni nga ko waxee waaw lu ne ñu séq ko nag lu ne waaw lu ne waaw lu mu xam ci lu baax lu mu fu la fum la mën a yóbbu ci lu baax maanaam li ko sëriñ mi waxee sànq rek ak kii maanaam xol bi amulu ci kiñaan kenn li ci yéene boppam la la ci yéene parce que nit ki nga xam ne saa su nekk même bu defee bisam ba pare la cay avancement yokkute day naan la defal lii ci sa bis kooku bu la ko yéenewul woon avancement du la ko def kon ñu ngi leen koy seedeel sëriñ bi sëriñ bi yow sëriñ Xaadim suñu diggante passé na tuddeeg cant suñu nga suñu kilifa nga suñu waajur ñu ngi koy seedeel ñëpp jàpp nañ ko insha allahu taala te duñ ko bàyyi benn yoon ñu ngi koy seedeel ñëpp lépp la jàpp nañ la jàpp nañ mbokku taalibe ñoom jarde ñëpp xam nañ ne nit boo moom doo xam ak njabootam xam nañ leen ak ay soxnaam lay sant bu ma amoon lu man loolu damay wax a wax ci baas bi yëpp yow laa koy jagleel waaw barki wallaahi su ma amoon damay damay bàyyi discours bi jagleel la ko waaye temps bu xat rek ñu war a tënk waaw di sant sëñ Seexum sëñ Laat yi nga xam ne moom it wax dëgg yàlla sëñ Laat ko fi yebal mu ne fi boobu ba léegi moom it ànd ko ak ñun ak sëñ Modou Abbas kon sëñ Cheikh ñu ngi lay sant di la jox nga jotal ñu sëñ Laat sant gi di sant Cheikh Ibrahima bi fi jógee moo ngi nee sax moom rakku sëñ Ahmadou moom sëñ Moutalla di suñu mag ren fekk ko ci tukki moo tax teew fi waaye ñu ngi koy sant di sant sëñ Modou Habib Guèye conférence yi bu baax jàmbaar la ku baax la ku ñu fonk la ku bëgg bis di sant imam bi itam imam ka di ko ñaan yàlla fannu gudd ak wér di sant waa rëbës yëpp ak kañ naan kase kase muy jama kase gisuma ko tey ci cérémonie bi waaye ku sonn ci bis bi la ak ak ak fi mu àgg yëpp mbooleem ñi nga xam ne ñooy suñu mbëkk géwéle Serigne Thiam ak Abdou Seen mii nga xam ne dañoo jóge Daaru Muxti yendoog ñun ba ma leen gisee damaa kontaan ndax dañ fay yàgg daan ñëw di ko ànd ak ñun gis nga li yàlla def mu yor euh, organisation bi defe ko na mu rafete kon daal sëñ mu Ndiaye kii maan ma doon wax rek sëñ Moustapha la ñu bokk may ñaanal sëñ Moustapha mi nga xam ne moom la ñu yàlla def muy sunu lépp yàlla yokk ay leeram fa mu ne te dolli ko ay xéwal fa mu ne te gërëm ko gërëm loo ko ñu ngi lay sant sëñ Mour li ñu boole bari na te du ñu tàqali mukk waaw di sant sëñ Saliou sëñ Moustapha ab sa moom it di sant ñëpp xam na sëñ Falloum sëñ Modou Faty Khary doomam léegi la fi jógee sëñ naa ñu ngi koy sant bu baax moom it suñu waajur la suñu kilifa koso gay mala itam ñu ngi koy sant moom it muy mbokku taalibe bokk ci mbokku taalibe di jàmbaar wax dëgg yàlla mbokku taalibe yëpp rek ak mbokk yi nga xam ne yëpp def nañ ci bis bi seen dërëm yàlla na leen ko sëriñ bi fa fulal xam naa li ma tënkoon dafa fekk ne ku mel ne euh, sëñ Modou yi dañ doon waxtaan ma ne ko euh, nañu waxtaan ci thème bi ci booloo jullit ñi bennoo ak jullit ñi muy wahdatul muslimin jamono laaj ko nag ndax fi jamono toll ñëpp gis nañu ne senegal lu ñu xamul woon mi fi fiy tàbbi ay nit yoo xam ne say mbokki jullit lañu waroon a bokk ak yow lépp ñuy wëlbatiku bu doon sax xëy na dañu lay dañuy jàpp ne danga jaarut yoon ñu jéem la ko wax ci teggin sax nga wax waaye dem ba di saaga ak di laal ay pas-pasi jàmbur loolu doy waar la te war nañ ci bàyyi xel te sëriñ bu mag bi yar ñu ci ñun ni ko sëñ Modou Habib waxe booloog jullit ñi lu koy suuxat dawlatul batil saaxa wa dawlatul xaq ila saaxa alxaqu saabit wa amal batilu fa in fa zaahiqun wa saafin dëgg lu mu yàgg yàgg yàgg mooy féete kaw te mooy sax ak neen it lu mu kawe kawe day suux bi ci des mooy may wax sama mbokku taalibe yi njëkk may ñëw loolu di leen bàyyiloo xel ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla te teg seen tànk ci siraatal mustaqim te jaamu yàlla ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu leen wax lu dul loolu dañ leen di nax responsabilité bi ma am ak yéen mooy bu ma toogee ma wax leen loolu mënuma nag ku nekk ma fekk la fa nga nekk jàpp sa loxo ne la force ngay def li waaye wax rek sama message génn te sëriñ bu mag bi nga xam ne ñun moom lañu ñu gëm dafa wax ne rajaa u jannatin bila tahaati bi sunnatil maahi xururun yi képp koo xam ne dangay ñëw fii fi man yaakaar fi aljanna joo xam ne àndut ak yàlla nee na àjjana jooju amu fi kon ñun buñ leen diggee ne leen ëllëg dañ leen di dugal àjjana te jaamuloowuñ leen yàlla ñu ngi leen di sànq ndax sëriñ bi moo ñu njëkk digal loolu mu dolli waxta waxaat waaye dégg sëriñ bi nag ñoom yonte yi xam nga yoonte bi yonte yi ëllëg suñu borom dañ leen dajale ñoom ñaan ñoom ñëpp laaj leen yow ma yajma'u laahu rusul fa yaqulu maaza ujibtum donte ñoom xaalu laa ilma naa la ñuy wax waaye ay message lañ leen jotaloon pour ñu jottali ko message yooyu ñu leen joxoon pour ñu jottali ko dañ leen laaj ndax jottali nañ ko bi nag pour lay boobu ñu mu damm ko suñu digganteek moom moo tax mu digal nu bindaat na yaa jumlata tullaabi wal ixwaan yi yéen samay mbokki taalu ak yenn samay mbokki deret lan la ñu digal aleykum bi taaxati yi maa ngi leen di digal ngeen topp sunu borom ndem man ngeen ne Sëñ Tuubaa man ngeen ne man ngeen yaakaar man ngeen bëgg man ngeen topp maa ngi leen di digal yéen samay mbokki taalibe yéen samay mbokki deret ngeen topp suñu boroom mu mel ne dañ koo laaj suñu boroom nan lañ koy toppee mu ne suñu boroom kenn du ko topp ci ak làmbatu baax da taxallumin wa bil aadaa bi danga koy gëstu ba xam ko doo koo topp si da ngay tëñëx tëñëx waaye nag boo ko gëstoo ba xam ko ci xam-xam xam-xam boobu danga koy laal ci ay teggin ndax xam-xam bu ànd ak ay teggin ñëpp xam nañu ne amulul njariñ nit ki koy def parce que mën naa tukkal àdduna tax teggin mooy woddu xam-xam pour taaru teg ci wa kullu wa kullu zi yunji min al azabi ak lépp lu leen di musal ci mbëggalum sawara wa bittibaa sunnati rasuli wa sunnati sahabati al aduli waaye nag topp googu ñuy topp yàlla nañ ko teg ci sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam mu dolli itam waxaat ñu ne duumu ala xawaadil islaami niltum salaamatan la dal xiyaami sax leen ci ponki lislaam yi bu dee bëgg ngeen ëllëg yowmal xiyaama ngeen am fa jàmm ponki lislaam yi ba njëkk mooy tawxid maanaam pas-pas bi mooy nga kennal sunu borom wéetal ko bañ ko wutal dara teg ci julli woor azaka aji màkk mu teg ci laa tanduru ila te bu leen di xool waxuma la sax wax waaye bu leen di xool ayib bi nit ñi sax ba di ko wax loolu la ci teg ñu moytu sax di xool ayib bi nit ba di ko tudd kon nag loolu dama ko doon fàttali sama bopp ñu xam ne sëriñ Touba mi ñu topp ne moom lañu gëm ëllëg moom ab amul taalibe buy toog ne sëriñ bi ña ko fekke woon ñii wax nañu dégg mu bind bàyyi fi ñun ñi ñëw ci ginnaawam ay téere ma ci moom amuñu benn lay tazawadu sira tazawadu subaan mbooleem téere xam ne ku réer yow la ne suñ borom kenn mënu ko toog ci tëñëx tëñëx bala nga koy topp boo bëggoon a jóge fii dem fële boo xamul yoon wi doo dem bi ci des ma doog a ñëw ci li sëñ Modou Habib wax ci wàllu booloo jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi bi ñu fiy jógee dafa wax ne ballighu anni walaw aaya jottali leen ma donte benn aaya moom dèjà mi ngi wut aw lay suñu digganteeg moom jottal nañu par di ñu jottali loo nag kon képp koo xam ne dangay ngay jottali message yu yonent bi sallallahu alayhi kooku des ko war a topp sëñ Modou bi wax na ko atiyu llaha wa atiyu rasul wa ulil minkum kooku alquran la wattabi' sabila man anaba ilayya topp yoon ki nga xam ne yoon yu mu la jëmale ci suñu boroom la jëm kooku topp ko dara néewu ci kon ki taxaw ne la topp nit dafa xaraam kooku dafa mel ne sukkandikuwul ci alxuraan wala mu sukkandiku ci li nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wattabi' sabiila man anaab suñu boroom ko dig moo ko digle topp yoonu ki nga xam ne da koo da laa jëmale ci moom wa atii'u llaaha wa atii'u rasuula ulil kon nanu bu ñuy bu ñuy gis nga xëy na suñu boroom dafa bind dafa sàkk lislaam def ko muy diina ju daj àdduna bépp wuute gu gum bëgg wuute ko moo tax bi mu bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko wax wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas maanaam ci mbooleem nit ñëpp laa la yónni ndem mbooleem nit ñëpp la ko yónni nag wuute mënul ñàkk foofu boroom xam-xam yi ñuy wax ne ixtilaaful umma rahma wuuteeg xeet wi yërmande la suñ borom indiwaat ñu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa dèjà wuute ñëw na dama leen a bind ñii di ay góor ñii di ay jigéen wa jaxalnaakum shuuban wa xabaa'ila ma def leen ay peuple ak ay giir ñii di ay sénégalais ñii di ay français wuute ñëw na ci biir peuple boobu sénégalais bi mu defaat fi ay xeet muy pël bi di wolof bi wuute ñëwaat na kon suñ borom moo bëgg wuute googu am ci nun kon jëf yi nii ci kaw moom wuute gi amu ci solo jëf yi nii ci kaw wuute gi amu ci solo ndax lam ca teg xabaa xabaa'ila li taxaarafu li tax loolu lépp mooy pour ngeen xamante waaye nag indi ak akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen du wolof bi du pël bi du sénégal kay mooy ko gën a ragal yàlla waxul kii julli di aj loxo waxul kii julli di wàcce loxo waaye dañ cee war a boole ci wuute googu nag yaatalante dënn di tolo di def tolérance sunu biir waaye bu fekkee ne man sëñ Xaadim mii wuute ci pas-pas rek tax na ma koy ŋàññi loolu diine amadu fa te saxaaba seen bopp ko ridwanullahi alayhim dañ doon wuute ci seen biir léegi-léegi ba ku nekk sax dem jëfandikoo xelam ñuy wuute ci teew gu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak wuuteem di wuute ba yonte bi sallallahu alayhi wasallam léegi-léegi mu waleen ñoom ñëpp jox leen dëgg ñoom ñëpp ci genn wuute ku ne xam na bam ne na leen bu leen jullee tàkkusaan li feek ci ci lu dul dëkk sàngam bu leen julli tàkkusaan lu dul ci dëkk sàngam ñu dem ba ci digg bi julli tàkkusaan jot ñii ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jublu mooy dafa bëggoon na ngeen gaaw àgg balaa tàkkusaan a jot ñii ne dafa ñu bëgg wax ne ñii ne daf ñoo yonent bi sallallahu li ñu digal mooy bu ñu julli tàkkusaan te àgguñu digg sàngam bi ñu ñëwee mun laaj leen ku ne wax mu ne leen yéen ñaar yéen ñëpp am dëgg loolu wuute la bu doon jamonoy tey yi ah, dañ lay takfiir bu yàgg ne la ab yéefar nga yam ay caaxaan te sunu mag ñi nga xam ne ci tawxiid lañ nekk ci ci tasawuf lañ nekkoon ku ne xam na ni Sénégal gii nga xam ne tolérance bii fi am ñoom ñoo ko fondé yar ñu ci am majorité am minorité dëkk ci di ko saaga mu ko mu mu toog ne pat tolérance kooku yar nañ ko ci tolérance ñooñu bu doon ñun ñooy minorité waxatuñ ko def nañ ñu nañ def Mali bu yàgg te loolu ñoom ñooyu ci yàq mooy ñoom dañoo xajowoon ñëpp malgré yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi seenu wuute yëpp da leen a digloon ñu doon ay mbokk te mbokkoo ñoom it suñu mag ci loolu la ñu yaroon dégg naa fi koo xam ne nee na dafa romb ay photo ñu kuy jaay ay photo yu mbër mu gis ci ay photo yi sëriñ loolu wax bu gën a garaaw boobu amul mu ne ñoo ñëw seen sëriñ si ak mbër yi photo yi nee na ñoo yam rek parce que ñi bokk ñooy ànd xoolal wax bu garaaw boobu loolu doy waar la ci am majorité mu lay toloré ñun ku ne amuñu tolérance rek xamoo li xew parce que dañoo digal Serigne Touba waxaat ko maam Serigne Touba daf ñoo digal falaa tuhaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah te lim njëkk li ñu njëkkoon a mooy bépp wéer wérd boo xam ne dafa jóge ci yàlla rek soo ko jàppee rek dina la yeggali ci bay suñu borom tudd ci Abdul Xaadir Jaylaani Ahmad Tijaani Abul Hasan Asazali waaye mu xam ne su yamee loolu day gàtt day mel ne parparloo mu indi lii ma wax sànq falaatu haadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah képp koo xam ne sax waxuma la sax ku jàpp ci tariixa waaye koo gis gimiñam gii di gën a laa ilaha illallah sax amoo sañ-sañu noonu ñooñu deseetuñu dara ñii dañuy def ay caaxaan du diine te jullit ñi li leen arrangé mooy booloo ñàkk booloo julli ñi néewal na kàttan jullit ñi Palestine suñu mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal suñu borom génne leen ci tolof tolof ñu ngi ci ay jafe yu metti àdduna bépp seetaan ci jamono boobu àdduna bi di feetaan la am Palestine mu mel ne dara xewul dara dara dara benn télé du ko teg wala bu ñu ko tegee day ba ne dara xewul jullit ñi boobaa ñi ngi ëpp doole ci adduna bi doon lu toll milliard ci adduna ñuy toroxal Palestine kenn waxu ci moment booba li am Palestine opération lañ ko tuddee li am diggante Russie ak Ukraine ñu tuddee ko agression parce que lan ay réew ñoo booloo contre Russie ay réew booloo fee contre Palestine jullit ñi war nañu gën a boolowaat te tàqalikoo gi dara teguñu ko lu dul sunit bi ak siyaan bi kii ne duma la tudd kii ne duma la tudd te suñ borom digal ñu waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu innamal muminuna iqwatun fa aslihu bayna aqwaykum julli ñi nañu xoolaat ëpp ci àdduna ba pare gën fee néew doole ci saa zahir dooy na waar yàlla na yàlla génne Palestine ci li mu nekk àdduna nag foofu lay jeexale kàddu yi toll na ci jamono bu doy waar at mu jàll dugg dañ vingt 2024 bi ñuy ñëw dañ ne yàlla ñu yàlla def at mii ñuy dugg ñu dugg ci ci ay xéewal at te yàlla musal waaye dafa mel ne rek ñun dañoo jàpp ne jamono mooy soppeeku jamono soppeeku jamono toujours jamono la na ko suñu borom bindee woon li fekk jikko yi changé wul at mu ñëw mais loo loo ci gis ba nga xëyee suba nga dégg tremblement de terre euh, Japon nga dégg Israël bombardé waat euh, Palestine parce que jikko yi moo changé wul jamono du changé si sa mbay day wax ne bu leen ŋàññi jamono yonent bi daan na ko wax ndax suñu borom mooy jamono at mu ñëw nga naan yàlla na dàq déwén bu jikko yi changé wul même chose bi mooy répété wu doomu aadama zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydin naas suñu borom ne dafa defar àdduna ba mu jag mu wàcce nu fi mu jagal lépp waaye daan nañu nag zëhëral fasaadu fil barri wal baxri bi maa kasabatay naas yàqu dana feeñ te lépp doomu aadama moo koy sabab technologie développée dem ba jey nit doomu aadama mu jàpp ne dara tëwutu ko di créer lu ne li muy créer lu baax di ci am ay conséquences du ci am te bàyyiwu ko xel muy gën a metti ci suñu réew yu néew doole yi ndax amuñu doole ñoom malgré ñi ngi jéem a sax protéger wu waaye léegi-léegi suñ boroom wan leen du ngeen ci mucc dagg garab ci àll bépp nature bépp yàq nañ ko taw yi taweetul nam doon demee zëhëral fasaadu fil bari bi maa kasab ay dinaas rek yàq suuf sépp àdduna bépp yàq nature bi dagg garab nga gis koo xam ne day ñëw di dagg garab ngir dërëm bam cee am te xamul ne après conséquence bi daf koy dundaat tawul wala mu yéex a taw dund amul mu cher mu jooytu fekk moom moo yàqoon bi maa kasab ay dinaas doomu aadama di tuur deret te ñëpp xam ne suñ borom bi mu bindee di war a wàcce aadama wax ko malaa malaayika yi lan lañ ko wax dama war a wàcce doomu aadama mu doon sama kuutaay ci suuf inni jaaxilun fil ardi xalifa lan lañ ko xaalu atajaalu fiyaa man ñu suñu fiyaa wayees ci ko dimaa ndax da leen di wàcce ñoom ci suuf ñu yàq suuf si di tuur deret doomu adama tour deret dem ba tey tour deret rey nit ak reyu weñ la yamale def ko muy dara te bàkkaar gënul mag màgg bàkkaaru tuur deret dem ba justice suñu borom doomu aadama teg ko fële ne dafay àttee justice su boppam te wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wala xayna beneen wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulaayika humul faasiqun ulaayika humuz zalimun doomu aadama loolu lépp mu teg ko fee ne moom day àtte woo boppam te àtte boppam bi yëpp moom mi am doole mooy protéger boppam ki néew doole faaliwu ko doomu aadama yàq géej gi yàq jaww ji lépp yàqu est-ce que ñi fi jiitu woon du ma ne yàqu ju ci àdduna dara de xëy na ndax technologie àggul woon ci ñu mën a xam lu bari waaye bàyyil nañu fi àdduna boo xam ne ñun bi ñu fiy ñëw suñuy ñëwkoon àdduna bu jag mais ñun est-ce que dinañ fi bàyyil ñu war a ñëw àdduna bu jag gëm naa ne àdduna bii ay at nit door fi dundati dund ko jaaru tàngoor wi ñuy dund kenn xamul lu mu doon changement climatique bi doy na waar doomu aadama est-ce que dina dundati ci àdduna bii ndax yàq nañ lépp bi maa kasab ay di naas suñ borom jaay ko rek mu topp loolu kon doomu aadama yi nañ delloosiwaat seen xam ne suñ borom a ko moom waaye nag bi mu ko bindee ba mu jekk dañu ko bàyyil du ñu ko defaral bu ñu ko yàqee du ko defara noonu la koy bàyyi yi di am yëpp ñu na ni ko sëñ Moise waxe tey kenn xamul li xew jikko yi yàqu na ndaw ñi ñu bare ngi jël gaale di dem ay bakkan di rot muy lu doy waar waaye ñuy ñaan sunu état yi ñu gën a jàppale gone yi ci xam xëy Ah, lu am lu sax xorom nag laay nettali xam ma euh, dama dépose woon ci fonds yi jëwriñ Ibrahima mu def defaloon projet bi te bari naa ci ay morom nag ma toog ci tool yi ñu woo ma téléphone ne ma Cheikh Ahmadou Bamba ma ne waaw ñu ne ma sa demande gis nañ ko ñu ngi koy traité ba tey laa la wax tey man na 3 ans wala 4 ans bari ki démb maam Thior ne ma moom dafa defoon DER ñu woo ko ne ko Cheikh Ibrahima mu ne waaw ñu ne ko yaa dem ñu ne ko sa sa demande daal nangeesu ko su ma bey di ma woon bosom far man ndakate man yeewu naa gis ab appel fu ma ne numéro bii numéro ndakate boobu dañ maa jotut ñoo ma woo loolu dafay découragé loo nit ñi di def ay financement doo ci gis dara internet ñëw yàq lu bari nanu bàyyi xel yooyu ñu gën a jàppale ndaw ñi ndaw ñi jéem a góorlu ci liggéey tey li ko sëñ Xaadim waxee jéem a bañ a xeeb liggéey ndax Europe ku fa demul xamoo lu fa xew yàlla xam na ni bari na ko dem ba yegg day découragé wu lu metti la nag lim la fa nit di def amaana bu ko defoon fii mën na cee génn waaye li xew moom di jël gaal gi dee ko mu weñ dara jaaduwu ci nañu gën a jàppale ndaw ñi moo xam ku fi war a ñëw ëllëg na nga gën a gestu ndaw parce que ndaw mooy ab am réew te waruñoo nangu suñu ndaw di jël gaal gi ñii di jaar ci yoonu Amérique bi di dem ñii di faatu ñii di yegg même bu ñu yeggee sax du avantage si ñun parce que am réew ay ndawam a koy defar te bu ay ndawam desee demee kenn desitu fa kon nag ndaw ñu jéem a toog góorgóorlu tey suñu état yi jàppale leen ni mu ko waxee itam élection la ñu dëgmal jàmm la ñuy ñaan mu am di ñaan sénégalais itam ñu bañ a doon ñoo xam ne euh, dañu leen di ndax cinq du lu yomb cinq ans ki la ko nar jiite war nga xam kan la war nga xam kan la bu ñu nangu rek bu élection jub see rek ñu ñëw fexe ba ma am sama carte jeex na loolu bu ñu ko nangu dañuy seetantal ñi ñuy fal ba bu ñuy jox suñuy réew jox ko ñoo xam ne bu ñu leen ko joxee dinañ liggéeyal suñu réew jariñ ñu damay toog benn bis ba ne sénégalais xamul sax moom sénégalais man daf maa jaaxal da ngay xool parrainage bi sëñ bi yow dem yow yow jël sa carte ku ne nga jox ko yow ku ne nga jox ko sa carte d'identité xamul sax carte d'identité li ku nekk dem def dem dem ne boppam yow xamoo sax yow carte d'identité ki nga ko jox lan lim ci mën a def ci lu mën a dalaat sa kaw yow nit ñi nañu yeewu ci côté boobu te di di xool di topp nit ñi ci programme yi te xam ne loolu moo ñuy jëriñ réew mi itam ñu góor góorgóorlu ci ñun ñëpp te xam ne am réew la moo xam ne ca bu njëkk ba léegi sénégalais yi niñ ciy demee mooy kuñ koy jox dañ la koy jox ci jàmm ak salaam kon nag képp kuñ koy jox nañ ko ko jox ci jàmm ak salaam mu yor ko ci jàmm ak salaam ñi ko yoreet organiser élection yu libre yu jaar yoon may sénégalais bi mu mën a dem voter librement ndax nit kii bu ko boo ko mayit loolu rek mu mën a voter librement rek mën na jur mu jàpp ne dañ ko xañ baat boobu ba mu tax mu doxe neneen te warul doxe noonu loolu nan ko bàyyi xel ñi jiite réew yi suñu réew yi waaw moom daal xam naa ni li ñu tënkoon bëgg ko wax bari na wa dund geet waxoon naa ko fii daaw courant bi ren moom ñëpp gis nañ ko sax du ma ci waxaat moom courant bi moom ñëpp ku ne toog nga jooytu ko moom waaw ku ne toog nga jooytu ko kon nañu waat nit ñi ci dund ku cher gi wàññi courant bi wàññi wàññi yëpp bi ci des it mooy sunu mbokk immigré yi ñu ngi ñaan sunu njiit yi ñu taxawu leen immigré sonn na man nekkoon naa Italie mais doo sentir sax yow ne am nga ku la représenté ca réew ma ba boo amee problème jooytu ko pourtant tey tubaab bi ne ci réew mi muy français bi wala leneen bu ko dara wokkoon ci guddi gi balaa xëy suba ambassade mooy njëkk réagir état mooy njëkk réagir àdduna bépp yëg ne laal nañ doomu français doomu sénégalais bi ñu rey ko ci bitim réew kenn du yëg ne rey nañ sénégalais bi ambassade yii nga jël sa xaalis dem déposer ci visa ñu jël sa xaalis duñu la may dara da duñ la delloo sa xaalis dañuy xam sax des fois xam ne seen quota mat na mais teewul ñuy continuer di jël am nit nag pour ñu respecter ko moom mooy njëkk respecter boppam il faut ñu respecté waat suñu bopp pour tubaab yi mën ñu respecté li ñuy protéger seen doomu ay réew dañ ko ko war a protéger suñu doomi réew parce que man xam naa ci dara man da nga naan nekk Italie ngay posé question yow est-ce que am nga ku fi rëpp buñ fenn fenn fenn fenn du fu mujj kon gën a joxaat gëdd suñu doomi réew yi ñi fa nekkal état yi nañ gën a waat doomi réew yi ñu taxawu leen loolu daal bëggoon nañ ko wax ci côté immigré yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant di sant soxna Anta Gueye ak suñu waajuru soxna Kiné waaw di sant sëñ Xaadim bi jéggalu ci jotaay bi yàgg bi yàlla xam na ne lu ñu fàtte rek dañu xel rek mooy fat waaye lépp lañ bëggoon a wax jàpp nañ ne discours beet xëy na matale na lu ci dëngit defar képp ñu tax a jóg waaw kon daal ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp waaw ma ma am message rek bu ma bëgg a jàllalee muy ndeysaan daarul muxti ay xale yu ñu fa jàppoon ci manifestation yi boobu ba léegi ñu ngi ci kaso bi yàgg nañ fa lool yàgg nañ fa lool ñoo def defunu nañ leen jéggal te yàlla tax tax sonn nañ fa yàgg nañ fa kenn gën ma cee ñor wallaahi aw maa moom relation xamante wuñ sax waaye nag waajuram ñu tuddee ko sëñ Cheikh Fatou Fall muy ku naan Cheikh Omar Bamba Diop bii ñëpp xam nañ ne daan nga gis muy liggéey liggéey bu am solo ci waajtaayu màggal daarul muxti rawat na xam xam Ceerno jot na Cheikh Omar Bamba Diop boobu ba léegi plus de 6 mois mi ngi ci kaso bi kilifa yi ñu ngi ñaan suñu kilifa yi Daarul Muxti ñoo xam ne Cheikh ab Cheikh Omar Bamba Diop même bu doon citoyen simple ci Daarul Muxti mais citoyen la boo xam ne am na liggéey bu mu liggéeyal borom daaru nañ ko tinul ñu génn ko feedu place am ak mbooleem détenu yi nekk ci daaru ñu nekk Daarul Muxti te ne ci biir kaso bi ñu ngi leen di ñaan ñu yërëmal leen woyofal leen te génne leen te xëy na bu dee yar lañ ci jublu jàpp nañu ne loola moom dootuñu ci delluwaat ñu ngi leen koy ñaanal ndax nit it bu wàccee yoon ñu teg ko yoon jaadu na waaye nag bu tax bu fekkee ne jot nañu ñaanal ko nañ ko ñaanal ndax su suñu yi réew la dëkk lañ te ñun ñii ñooy seen kilifa bu ñu amee doom ñoo leen di tuddal ku ci génn àdduna ñoo ngay ñoo ngay woo ñu ngénte la rawat na Cheikh Omar Bamba Diop maa ngi koy ñaanal ñu bàyyi ko mu mën a màggali Daarul Moxti Omar Bamba Diop feeñ na trop ci xam ci màggalu Daarul Moxti gi xam naa ne seen kilifa yi dinañ ci dox ay tànk ñaan ñu bàyyi ko ak mbooleem ña fa nekk waaw imaam mi ngi ne waa maa ngi koy sant bu baax di gërëm ñëpp suñu xaadim kon mu mel ne li ñu bëggoon a wax man na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu may suñu xaadim nag ñu ngi ñaan ñu may suñu xaadim mu génn moo ñi mu àndal ba pare bu ko defee ñu ñu doog a continuer incha allahu taala yow ma fëri maa ngi lay sant asalaamaaleykum